bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa seen mbokk Imam Moctar Ndiaye moo dellu si leen laay biir ci waxtaan yi muy am ak yéen saa su nekk incha allah sunu tomb waxtaan tey dañ koy aj ci phénomène bu doy waar ñu koy wax dépigmentation muy wàllu xeesal mbokk yi lii di xeesal ñu koy wax ci tubaab dépigmentation muy ay produits yoo xam ne nit dina ko jëfandikoo ci coobare boppam pour soppi li nga xam ne mooy melokaanu yaramam yaramam ñuuloon ñu bëgg ko soppi def ko beneen couleur beneen melokaan muy leeral boppam walla xeesal boppam te li ci ëpp nag ñu koy defee ak ay produits yoo xam ne wax dëgg yàlla ay produits cosmétiques la moo xam ay diw la. mo xam sax ay doom yu nuy naan la moo xam ay pikir la yoo xam ne wax dëgg yàlla kuy xool ba ci biir yooyu dafa am ay conséquences yoo xam ni wala ay jeexital yu doy waar ci wér-gu-yaramu nit ki tey phénomène bii di xeesal mbokk yi muy dépigmentation daana ko mën nañu wax ne effet de mode la tey lu xew la rawat na tey ci jigéen ñi ci àdduna bi yépp rawat na nag fii ci suñu réewu Afrique yi rawat na tam fii ci sunu réew mi nuy dund di Sénégal lii di de pigmentation mbokk yi ci gisuñu lislaam dafa nekk loo xam ne lu xaraam la lu xaraam la lu lislaam aye la lu lislaam tere la ndax la la ciy juddoo ci ay conséquence ci sa wàllu wér yaram ndax yow yaa ngi sabab loo xam ne mooy yàq sa wér yaram te tey ku nekk xam na ni médecine

waaye tamit ba ci feebaru roño yi sax ba ci wàllu neurologie ba ci feebar yi nga xam ne mooy jàngoo xol yi muy cardiovasculaire loolu yépp tey médecine leeral na ko wane lii di xeesal lii di dépigmentation amul benn njëriñ du def lu dul lor ki nga xam ne moo koy jëfandikoo ci wàllu wér-gu-yaram te ci sharia mbokk yi nuy wax ni lépp loo xam ne bépp produit wala bépp substance boo xam ne nit mu ngi koy jëfandikoo te loolu am ay lor am ay jeexital yu doy waar ci wér-gu-yaramam loolu jëfandikoo ko lu xaraam lay doon moo tax suñu borom mu ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala tulqu bi aydikum ila tahluka mu ne bu leen di dugg ci loo xam ne kat wala ay pratique yoo xam ne kat dafay yàq seen wér-gu-yaram wala sax ngeen jaar fa ñàkk seen bakkan te ku nekk xam na ne tey jii xeesal bi mbokk yi tey jii lor na jigéen ñu bari xeesal bii tey jigéen ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan jaar na fa tey am wér-gu-yaram goo xam ne gu sooxe la mbokk yi tey ñaati jigéen tey ñoom noo tëdd ci lalu hôpital yi tey ndax tension wala ndax cancer ndax li nga xam ne mooy ay jàngoro xol te lenn tegu leen ka lu dul li nga xam ni mooy dépigmentation muy xeesal bi mbokk jullit ñi képp koo xam ni jullit nga gëm yàlla gëm bis bëñ kooku de danga war doyloo ni la yàlla binde waruloo soppi ni nga xamni mom la la yàlla binde sa nature originelle bi la yàlla binde loolu waruloo ci soppi len yàlla ci alquran mu ni la tabdila li xalqillah zalika dinul qayyim mu ni bu len di soppi min duk sunu borom subhanahu wa taala sen nature originelle bu len ko soppi te loolu mom moy diine gu djub muy l'islam loolu la santane mooy doomu aadama bi amul droit di soppi wala di modifier wala di altérer nature originelle am ni nga xam ni moom la la yàlla bindee say cër amuloo droit soppi ko sa morphologie amuloo droit soppi ko waaye itam sa couleuru jëmm tam amuloo droit soppi ko ni la yàlla binde noonu nga war a doyloo noonu nga war a bàyyi sa bopp ba tax na mbokk yi bu fekkee yàlla subhanahu wa taala def la bint jox la li nga xam ni mooy der bu ñuul jox la li nga xam ni mooy teint noir da nga war a fier ca loola doy loo loola kontaan ci am ci mbégte sante ko yàlla waruloo am benn complexe wala benn sentiment d'infériorité par rapport ak ki nga xam ni kat dafa am der bu weex wala der bu jaune walla dafa xees ndax dañu gis ni mbir mi kat day dem ba nuru sax un sentiment d'infériorité da ngay yëg sa bopp ne yow kat ki am der bu xees wala ki xees kooku moo la féete kaw kooku moo la gën te loolu njuumte gu rëy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xutbaam bu mujj bu muy def bi ma doon def bu muy tàggatoo daf ci leeraloon lu am solo mu ni lii di der bu xees mu ne gënul fété kaw li nga xamné moy der bu ñuul der bu ñuul tamit gënul fété kaw li nga xamné moy der bu xees mu ne ya ayyuha nnas aw wala mu ne ayyuha nnas inna rabbakum wahid wa inna abaakum wahid kullukum li adam wa adam min turab inna akramakum inda allahi atqaakum laysa li arabi fadlun ala ajami illa bi taqwa mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di xamal ni kat seen boroom kenn rek la yéen ñëpp benn cosaan ngeen am te ngeen soqee ko mooy aadama alayhi te aadama moom nu ko bind ki suuf ma leen di yëgal lenn nag ni ki gën a tedd ca yàlla ki gën a kawe ëpp daraja fa sunu boroom kooku mooy ki leen ëpp ragal yàlla ma leen di xamal tamit ni ki nga xam ne dafa am der bu xees kooku gënul benn yoon ki nga xam ne dafa am der bu ñuul mu ni kat ki nga xam tam dafa am der bu ñuul gënul benn yoon ki nga xam ne moo dafa am der bu xees nee na ngëneel bi daal gënalente bi nekkul ci couleur de la peau nekkul ci melokaanu yaram wa déedéet waaye mi ngi nekk ci lenn mooy ci ragal yàlla ki la ko ëppale rek kooku moo la gën fa sunu borom subhanahu wa taala mbokk jullit ñi li nga xam ni mooy xeesal di dépigmentation l'islam daf ko tere aye ko interdire que formellement ci jigéen comme ci góor tamit ñoom ñaar ñëpp la ko aye ba tax na tey da ngay gis tey mbokk yi xeesal bi tey dafa dem ba jéggi dayoo sax ba gis ay góor ñoo xam ne macha allah taxaw di jëfandikoo lu nu mel di xeesal di leeral seen jëmm yi daanako dañuy dem ba nga xam ne ñoom dañuy def yëfu jigéen di jigéen jigéen lu li gën a doy waar nag gën a horrible ci gisuñu lislaam mooy góor goo xam ne tey yaa ngi xeesal di soppi sa melokaan araam na lool nag ci jigéen ni mu araame ci jigéen noonu la araame ci góor waaye rawat na nag ci góor guy xeesal te yonente bi alayhi salaam nee na yàlla de rëbb ne bépp góor goo xam ne yaa ngi jigéen jigéen lu yaa ngi def jëfi jigéen waaye naka noonu tam rëbb ne bépp jigéen joo xam ne tam yaa ngi imité di def yëfu góor ci wàllu comportement ba ci wàllu nekkin ba ci wàllu wax ja ci wàllu lépp ba tax na mbokk yi xeesal di lu xaraam la ci jigéen waaye itam gënati na xaraam tamit ci góor gu koy def tey bu nu xoolee tey cause yi nga xam ne wala raison yi nga xam ne tey mooy dugal jigéen ñi ci xeesal bëri na lool bokk na ci tey jigéen ñi dañu xirtalu ñoom ñëpp ci soppi seeni melokaanu jëmm pour lan pour njortu ni ñoom kat bu nu ko defee dañuy gën a rafet wala jàpp ne kat bu nu xeesalee dañ leen di gën a bëgg wala góor ñi dañ leen di gën a bëgg wala. dañuy xëcc seen bopp gën a xiirtal seen bopp góor ni daanaka loolu bokk na ci li tax tey jigéen ñu bari tey di tabbi ci li nu ci xeesal ndax jigéen ñu bëri dañu jàpp ni bu nu xeesalul bu nu soppiwul seen melokaanu jëmm jële ko ci ñuul yóbbu ko ci xees kenn du leen faale kenn du leen xool kenn du leen bëgg waaye tamit nga gis ni ci beneen wàll wa da gis góor ñu bari tey dañu am faiblesse na ko wax ci jigéen ñi nga xam ne dañu am teint clair mu jigéen ñu xees ñi te booy xool ba ci biir li nga xam ni mooy teint naturel amul lu ko gën amul lu ko gën a rafet nit ki bàyyeeg boppam teint naturel am boo ñuulee jàppal ni da nga ñuul yàlla moo la bindee noonu da wax fier ki sa teint naturel boobu ci sa ñuulaay boobu xam ne amul lu ko gën a rafet boo xeesee naka noonu bàyyil sa teint bu xees noonu ndax mosuloo gis sax tey jii ku am teint bu xees naan man maa ngi ñuulal kon yow mi am teint noir tamit da nga wax am matu tamit bul soppi sa tein nan da koy yóbbu di ko xeesal da ngay xool tey ba ci góor ñu tey góor ñu bëri tey pour takk jabar bokk na ci critères yi ñuy jël tey jii mooy femme bu xees ku am tein clair. fab jikko ju rafet de moralité ba tek ko fale sànni ko fale waye kat lanuy xol moy ndaw sa xéss na ka ngay tak na mu mel ku ndol la ku xéss la ku rafet la jeex na kon la la itteel mooy teint ba waye moralité ba jikkoom itelu la lol tay bokku na tay ci li waral tay to élevé de divorce yi nga xam tay mi ngi société bi moy critère yi islam jàngale won yeb dañ ko sànni fale yow waa la ngay xol ci ndaw sa moy tin ba clair na waaw ah, xees na jeex na xooloo diine ga xooloo moralité ba xooloo leneen te loolu c'est vice versa day gis jigéen ñoo xam ne tamit ñoom tamit xool na ci waaju lu dul kat gentleman la ku xees la mbokk yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nañu ci benn xadis mu ni yéen góor ñi boo leen di takk jabar di jenc soxna moytu leen li nga xam ne moom la ñuy wax xadra o diman saxaaba yi ni ko yaa rasulallah lan mooy xadraa u diman yonent bi ni leen mooy almaratu alxasnaa u fil manbati soo moo jigéen ñoo xam ne dañu rafet lool taaru lool respect waaye attention seen moralité baaxul seen jikko baaxul seen jikko rafetul amuñu moralité bu baax mu ne ñooñu de bépp góor ci dugg di nga màtt sa loxo rëccu di nga souffrir durant mbokk jullit di lii di xeesal lu xaraam la lu lislaam ŋàññi la te gis nañu tey jii tey dañuy def ci société bi li nga xam ne mooy promotion de pigmentation tey jii da koy fësal fépp nag di fësal di wan nit ñi tey ni kat tey eeru xeesal la ñu nekk produit yi tey di ko fësal di ko publicité partout waaye tamit ñiy def xeesal tamit tey dañ leen jiital ci kanam di gëmloo jigéen ñi tey ni leen ku soppiwul sa melokaan ku xeesul ku xeesalul kooku daanaka bokkuloo ci société bi ku amul teint clair daanaka nekkuloo li tubaab di wax au diapason rawat na tey ci média yi te jii boo demee ci média yi mbokk yi da ngay gis même kiy présenté journal vingt sax dañuy préférer jël ki am teint clair ñi am teint noir ñoom amuñu chance dañ leen di teg fale xoolal tey médias yi télévision yi waxuma kex si Sénégal mais à travers le monde képp kuy présenter journal 20h heures kooku dañuy préféré ñoom ku am teint clair loolu bokk na ci li jigéen li tax jigéen ñëpp tey daw livré wu ci li nga xam ne mooy dépigmentation xool tey bu choisir animatrice vedette ci benn chaîne télé wala rajo rawat na télé que nous jël moy ku xess femme ba dañuy jël ci critère dañ nan teint clair xoolal tay bu nuy sélectionner tay ci walu téléfilm yi muy série yi ngay gis tey di daw ci euh, télé yi bu nuy def sélection wala ci dige ñi ñuy jël pour publicité bu nuy jël tay du ñu jël mukk ñul waye dañuy jël teint clair xoolal tay ji jigéen juy def entretien ci ben société pour poste secrétaire wala assistante de direction bokk na tey ci critères yi donte waxuñu la ko sax dañuy préférer tey un teint clair ku am teint clair que ki nga xam ne dafa am teint noir ki am teint clair tey moo ëpp chance donte amul niveau sax pour occuper poste boobu tey que ki nga xam ne dafa am teint noir loolu tey mbokk yi mooy triste réalité bi nga xam ne tey il faut nu wax ko tey te loolu nag nekk na complexe gu rëy a rëy xeesal nekk lu xaraam. te duñu dañ di def promotion xeesal ci suñu société bi te am na góor ñoo xam ne tam ñoom ñooy def promotion li nga xam ne mooy dépigmentation di fayal seen jabar weer wu nekk tey am budget jëndal que produit yi muy jëfandikoo ci wàllu xeesal yépp ñu koy jëndal pour lan pour seen jabar jooju nekk koo xam ne dafay rafet dafay taaru ci seeni bët nekk koo xam ne tey day ràññeeku lool aux yeux de l'opinion ba fu nu toog ñu ni diw ku xees kale mooy jabaru diw loolu wut ni kat li nga xam ne vraie beauté nekkul ci couleur nekkul ci teint wu nit ki waaye mi ngi ci moralité ci jukko ju ci diine dañuy wax gis nga taaru solo am importance que li nga xam ne taaru couleur taaru jëmm nit ki na de waaye jikkoom nit waaye jikkoom rafet na lool la doon ko bàyyi xel tey bokk na tey lii autant de raisons la tey yoo xam ne tey mooy yóbbee jigéen ñi tey wax dëgg yàlla tey ñoom ñëpp nu xiirtalu daw livré wu ci li nga xam ne mooy dépigmentation malgré tey te lii nga xam ne dafay nekk loo xam ne daf leen di lor day yàq seen wér-gu-yaram waaye société bi tey moo leen ko imposé société bi moo leen won ni ku xeesalul ku soppiwul sa melokaanu jëmm kooku tey bokkuloo tey dañ lay relégué au second plan loolu moo tax tey jigéen ñëpp daw tey wutali xeesal bi ku nekk ngi xeesal jigéen ju ndaw ji jànq bi ba ci maire yu màggat yi sax ku ci ñàkk si jëkkër sax boo demee ba tey ji ba jeex sax commencé dem di diwu pour wut keneen pour wut ku la nopp ngeen baal ma ci kàddu gi

yow der bu ñuul di nga mën a résister di der boo xam ne wax dëgg yàlla du gaaw a màggat ki am der bu ñuul boo ko comparé ak ki am der bu xees kooku ki am der bu xees gis nga daanaka moom ku gaaw màggat lay doon kon nag naka nga mën a amee yaram wu nu mel ci ay avantage ba noppi nga bëgg xëy suba soppi ko ci ay produits yoo xam ne ay produits yu toxiques la yoo xam ne daf lay lor di lor sa wér-gu-yaram يانا يلا ما يديك اكتوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته